ay béykat ak ay sàmmkat ay nappkat ci session yooyu bi ñu rek ba xam ne ñeenti at yi bi ñu ko essayé léegi joxe na loo xamante ni dafa baga ne euh, bëgg-bëgg baa fi maanaam bëgg-bëgg jangat wala jàng wala yokk sa façon gu jàngin mais kon bu boobaa dañ ko transformé université boo xamante ni du feeku xaalis du ci laaj nga am diplôme pour mën faa dugg mais de laaj na rek nga am pas-pas ne bëgg na yokk sama xam-xam sama man-man ci limay liggéey bëgg ci yokk bu boobaa ñu dajalee nit ñooñu wut ñu leen mën encadrer wax ak ñoom ci langage bu simple ci wolof ci ci pulaar ci mandeng ci swahili wala ci français wala ci anglais rien que pour que bu man ci limay yëngu xam te ñi ma ko indil mooy université citoyenne ñu parce que dafa ko dafa dafa nekkoon koo xam ne mu ngi juddoo c'est vrai Égypte mais dundam yëpp fii la ko passé Sénégal cinquante presque quatre ans fii la ko passé mais avant muy ñëw Sénégal Samir jaar Mali nekkoon fa conseiller Modibo Keïta jaar Ghana doon fa jàppale programme quoi Kwame Nkrumah ñëw doog a ñëw fii Sénégal fii ci Sénégal boo déggee ñuy wax yenn institutions yi mel ni Samir Amin Moko, ko bindi moo ko Moko moo sanc